alhamdulillahi alladi an'ama ala albasariyati walbasar bi bi'sati sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama ila xayri ummatin uxrijat linnas wa bi xayri kitaabin yahdi lillati hiya aqwam suma salaatu wa salaamu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi tayyibin tahirin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew fu ngeen mun di nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di yónnee suñu nuyoo bi di ñaan mu fekk leen ci jàmm fekk leen ci teraanga fekk leen ci xéewal fekk leen ci wërsëg fekk leen ci ubbeeku yàlla man na ko am na ko sañ na ko yàlla na yàlla boole defal leen ko yàlla na yàlla boole defal ñu ko ma ñëwaat ak yow nag ci sofal la li ma sosoon ak yow démb ci asaka waxoon naa la ko ñaar fukki xeet yi imaamu Malik lim wax na dëgg sañ na ko ndax loola moo amoon ca réewam ma boo demee ci borom Cheikh Khalil ak ñaar fukk wënu muru yooya moo nekkoon ci jamonoom ci xeetam wa la mën a lim waxoon naa la kook ba gerte ñëwee fii ci suñ jamono ji ni ko suñ mag ñu baax ñi tedd ñi gisee nga jàppee ca timit nag rek lépp wuute la goo xam ne yërmande la goo ca rek jub ixtilaafu ummati rahmatun Malik a ngi ni jàngal Abi Hanifa mu wuuteeg moom Malik ne ñaar fukki xeet Abu Hanifa ne ñu ngi war a génnee lépp lu ñuy bay rek lépp lu ñuy bay lu mën a doon rek nañ ko génnee asaka Malik ne min gi tabwaid la imaamu Abi Hanifa ne min gi istigraqi yàlla su boobaa nag yow yaay seet boo ca jëfandikoo mu dal sa xel nga ànd caag maandu ànd caag ragal yàlla waaye nag bu la ca parparloo fekk boo ko defee yàqule mag mu day nii sëriñ tuuba xaadimu rasul genn gañ-gañal goo am ci sa xol ci moom su boobaa soo boo bàyyi julli xam ne torox nga mbaa nga am ko ci Seydil Haaji Malik sooye boo bàyyi julli xam ne torox nga mbaa nga am ko ci Seydil Haaji Abdallah ndax ay wëliyu yàlla lañ te yàlla kat li waxam di bari lépp ci hadisul qudsi ñu ne téeméer la yu teg ak li waxam di bëri lépp ci alquran ñaari yoon dong la yàlla takk xare alquran ba alquran jeex lekkati riba yi la ne zano bi xar bi minallahi wa rasulihi ba mu jeex dootu gisati xare bi yàlla waaye tamit hadisul qudsi li ñuy bari bëri benn yoon la yàlla takk xare mooy ne waliyoom yi ku ko ci bañal benn dana xare ak yow ku yàlla di xareeg nag say julli la jëriñ dara safara nga jëm moo wax ne man aada li waliyan faqad azamtuhu bil harb te suñu gaay yi bu njur waliyu yàlla yàlla xamul waliyu moom ba mu fi nekkee di contre seex naan du wëliyu yàlla Cheikh na Tidiane du wëliyu bu doon wëliyu du ko mën a weddeeg yu kenn xamut maam xalifa ne ko wilayatu cheikhina tijaanil afdali in lam takun fa laysa lillahi wali Cheikh na Tidiane daal bu dul wëliyoo yàlla yàlla amul wëliyu waaye alxaaji abdallah yi maam alaaji maalik maam sëriñ tuubaa buñ dul wëliyu yàlla amul wëliyu loola lu wër a wér la su boobaa nag yow seen attaya boo ca jàpp jëfandikoo ko rekk danga nga jub teg nga ko ci njub teg nga ko ci xam-xam teg nga ko ci ragal yàlla waaye xem ca nag waaye bul kontur leneen la ca def moo tax naa Seydunaa Sukayrij ni mu bàkkee alxaaji Abdalaahi Ñas ci téeréem boobu ma wax la bàkkee ko njabootam gu tedd gi noonu la bàkkee sayidil haaji malik tabaarakallaahu tamit ci téere boobu maa nga naan alhaaji malik alhaaji malik ibnu osmaan rida si fa huwa maahu lada sana siyaani wa banuuhu anfuruhum bi ayni inaayatin wa shamaltuhum bi rida rida nuuraani wa huna tazakkartu alladi qad xartaali mimma qultu fii awsaani loola kon mi ngi koy wax naan Seydil Haaji Malick mi doomu maamu Ousmane Sy moom daal ànd naag moom tagg woo xam ne wu rafet rafet la wu kawe kawe la wu màgg màgg la ci xam-xam waaye moom ak doomam ya man su ju maa ngi leen di xool bëtëb jagleel làmbale naa leen ñoom ñépp làmbaayal ngërmande goo xam ne leer ak yàlla la ndax nag xeyoon nañ ko ci seen xam-xam ak seen ak mbaax ak ci seen ak jub ak seen a ragal yàlla kon nag asakaangoog ak li ci haju wax naa la ko li ci des rek nag dama lay waxal ah niñ koy génnee ci liñ koy génnee wax naa la ko léegi li ci des nag ma wax la niñ koy génnee asaka boo demee ba koy génnee la ca jiitu na ànd ak yéene gu sell gu sell ci sa xol nga yëg ne lii santaaneeb yàlla la bu ma sant nga def ko fekk biñ koy def sa xel maa ngi dal nga ànd caag ragal yàlla jublu ci wéyal santaaneem bile ba nga demee ba koy génnee nag muy ca nag waag wala xarmaak wala xaalis baak wala sax wurus wa kan koy jox bu la neexee nga leeralal ko ne ko lii asaka la nga xam ne boole nga yéene ak wax su la neexee timit nga doyloo yéene ji rek teewlu ko ci sa xol jox ko ko te doo ko leeral ne ko lii asaka la loolu bu mënee ne moo gën moo gën ngir ñaar moo gën ndax doo damm moraalam doomu aadama dafa fonk boppam ku sañoon bokku ca ñay joxe kenn bëggut a bokk ci ña ñuy jox te nit ki nag boo ko joxee ne ko lii asaka mën naa dem rawatina bu nekkee koo xam ne sax am na waaye lam am da koo doyut na faa nekk sax ne man ndekki ku xeebu laa ñàkk laa ba ñu ngi may jox asaka mu yëg ko ci xolam même bu ko waxut damm nga moraalam muy koo xam ne nag moom balaa asaka jaa jot mu ne bu ma fàtte ci asaka ji kooku boo ko ne ko asaka jaa ngi nii moom du ko def muy dara waaye ku mel na le bokkut ak ku mel nii ñaareel bi tamit boo ko ko joxee xéene ko ci sa xol donte leeraluloo ko ko da nga mukki ci yenn tagg yi ndax boo ne ko asaka jaa ngi nii lii asaka la cinq cent mille mu compté ko nekk fa di la ñaanal di la sant di la gërëm te yow yaa ko waroon a ñaanal ndax lii xalalam la ba mujj nag yow nga yëg ci sa bopp commencé ci ak tiitaru mu mujj yàqu moo tax daal yéene kenn du ca ngistal nit ki mën naa ngistal ci jëfam nit ki mën naa ngistal ci waxam waaye yéene kenn mënu cee ngistal moo tax daal soo ko manee ngir daw tagg ya soo ko manee ngir daw euh, damu moraalu waa ji su boobaa daal la gën nga jox ko ko noona te jox gi tamit boo ko mënee wakkili sax nit koo xam ne ku jub ku ragal yàlla la soo ko joxee ne ko joxeel ma dana yegg nga yëkkati ko joxeel ko ko mu dem joxe ko fa mu war a yeggee waaye nag jox ko koo xam ne lantinoor la de lantinoor nag amul droit téye dawlin soo ko dugalee ci butéel bi rek lu cay dawlin rek mu dugalaat ko ci biiram ah waaye boo koy jox bu ko jox ku yore ku yore jikkooy suuf suuf nag moom loo ko sotti bala koo heggale ci kenn jariñ ci moom ci boppam loo ko jox ci ndox rek mën na koo dékku foo foo boo tuuree dawlin tamit bala ngaa seet moom niin na faneen ak fam fam tuuru lañ dëkk niin bu ko jox ko yore jikkooy suuf maa ngi lay ñaan boo koy jox jox ko ku yore jikkooy lantinoor nga xam ne amul droit téye dawlin kon joxe gaa ngoog ca yéene sooy joxe nag asaka mën nañ koo gaawee boo demee ku mel ni génne asaka gannaaw njëkk at ma di jot ku mel ni imaamu Saafiyu Ahmad Abu Hanifa imaamu Zahriyu ak Hasan nañ dagan na ñoom sax lañ wax Malik d'accord ci ñoom ñu ne ñii mën ngaa génnee asaka dawal ko lu jiitu yaa ngi war a génne asaka yi déwén mën nga génnee ko léegi wala nga génnee asaka ji lu man ñetti xat ba ñaari xat ñoom loolu lañ wax waaye ñoom wéet nañ ca Malik d'accord ci Malick daal booy gaawee na fekk ay fan yaa ngi doon joxe asaka ci ndeeteel weer wi weer wi teru na man nga koo joxe euh, euh, wala sax ci weer wi di ñëw nga war a joxe asaka yaa ngi ci weer wi waaye dugg a góo wale jege na ndax lu jege weer rek weer jege na maa qaaraba shay'un yu'taa hukmuhu su boobaa nga ne naa ko joxe su kaa bi koy waral nag mooy ña nga war a jox asaka da nga gis ñoo xam ne dañoo am soxla soo xam ne dafa nekkati na jonn lu ne këtt na jonn lu ne na jonn moo koy faj nga nekkat asaka ji ma war a génnee nekk na ñaar fukki million su ma ko naree xaar booba te ñii lii mënta xaar maa ngi ko waroon a génnee weer wala maa maa ngi ci weer wi nga compter ko jox leen ko ñoom ñu mën cee faj seen soxla léegi fekk yaa ngi ci weer wi fekk weer wee nga waroon a génnee man na waaye nag rawatina na bu mel nii bu taxawee nga taxawee ko noonu ci xaalis ci asakaay xaalis muy kexe wala wurus asakaay kexe su ma ne kexe rek wurus ak xaalis dugg nañ su ko defee lu mel noona mën na sababu nag wuutee mën nañ koo gaawee dañ koo war a yéexee ba ñëlee wax ne moom euh, ñaari xat ak loola seen sababu wuutee ci asaka ji mooy ndax asaka xaq yàlla la comme mboolem jaamu yàlla yi wala xaqi fuqaraaw yeeg masaakin nii la ndax dafa nekk di xaq yàlla ñu wax ne xaq yàlla la comme ni julli nekkee xaq yàlla xoor nexe ko xaq ñoom ñoo ne kon comme xaq yàlla la comme julli nekk xaq yàlla comme xoor doo ko gaawe da ngay bàyyi ba fa la yàlla tegee xaq ja nga doo ko joxe ndax xoor nag soo ko xiyaasee ne comme xaq yàlla la fekk gëtagut doo ko mën a def ndax kon dangay ngay jàpp ne kat koor kat fekk weeru koor ñëwagut doo mën a xoor xoor ak jullikat loo xiir xiir tusubaar jotagut tàkkusaan mënagoo koo julleegum ndax jotaguñu julli ñaari tur rek la xam salaatul ada salaatul qada waaye as salaatu qablal waxti xamut tàkkusaan a ko nangu ak gexe te ñoom jot nañ ba seen waxtu wu njëkk jotee rek lañ jot ndax moom ak saan ak ak ak ak tusubaar waxtay ni mustarikatay ni lañ timis ak gexe waxtay ni mustarikatay ni lañ yonent bi boole na leen te benn sama waralu ko kon jot nañ kon boo jàppee ne xaq yàlla lañ ni ko koor nexee julli nexee ko doo ko mën a jiital ngay xaar ba mu jot ki wax na nag asaka àqi fuqaraaw yi la ak masaakin yi la kon man nga koo gaawee dañ ko kon mën nañ koo gaawee ndax waa ji xaqam ta jot na jox ko ko soxla na ko ah, moom nag wax jooju gaawee gi moo gën a wér ndax li gën a wér mooy xaq yi fuqaraaw yi ak masaakin yi la moom ak julli wuute nañ moom ak joxe moom ak woor weeru koor wuute nañ looloo waral ibnu abbas wax na ne maanaam boo demee solo ibnu mas'ud solo na ne ana nabi sallallahu alayhi wa sallam ajjala min al abbasi sadaqatan sanatayni boo demee ibnu mas'ud solo na hadis ne yonentu bi gaawee na gaawee na asaka ju ibnu abbas waroon a génnee lu mat ñaari xat imaamu bizarre moo génnee xadis boobu moo tax kon boo jàppee ne xaqi fuqaraaw yi la daal mën nañ koo gaawe rawatina nag bu defee weer ak lu mel noona loolu moom Malik sax d'accord na ci su fekkee tamit d'accord nga ne xaqi fuqaraaw yi la ak masaakin yi la su defee xat wala mu des juróom benn weer juróom ñett lu nekkati na jonu taxaw imaamu Shaafi'i nee na ak imaam Ahmad mën nañ koo gaawe mu dem lii mooy seen gis-gis kon mu ngoog asaka ngoog booy joxe sellal ko nga yéene ko ñaareel bi bu jotee ca saasa joxe ko bu ko yéexee su fekkee tamit danga ko jiital mu gaaw njëkk eh, mu def ay weer loola man na su ko defee nag mu des nag nuñ koy joxee maa ngi lay ñaan yow mi may déglu nekk ab jarga yore nag asaka war ca nga war koo génnee konte nga fanweeri nag yëkkatil nag nga seet ku néew doole nga jox ko ko bu fekkee ñeent fukk nga konte muy musinatu di aw wëll seetal ku néew doole nga jox ko ko koo xeeyoo ca dëkk ba rek jamono ji moom maa bëgg a joxe asaka damay sol sama dàll yi mëttu ko joxe ji asaka jërutu sol dàll ñu ko xeeyoo dañoo bëri saa yoo xullee sa bët di gis jàkkarlook ñoom moo tax naan ku ma koy jox jërëtu ko dafa bëri foo gëstu gis ko xeew ko asaka fa ko liggéey ak yépp su boobaa nag sa nagu asaka wow maa ngi lay ñaan bul ko def muy nag wooy rend ca dëkk ba def koy saam soo ko defee amoo asaka saamab yàpp nga joxe asaka jee nag lañ la génne loo yow ngay joxe saamab yàpp foo ko teg fanweeri nag nga am génne nga benn jël ko nga seet ku new doole kenn nga jox ko ko ñeent fukki nag nga am am nga ku néew doole demal nga jox ko nag wi rek mu jeex moom kenn lu muy def moo xam waaye nga ne maa ngi koy rendi def ko juróom benn fukki saam kër gu ne nga dugal fa saamab yàpp ñu naan nagu asaka wi amoo tus lu jar a bàyyi xel la te bëri na lool ci dëkk yi ñaareel bi yow commerçant bi may déglu sa alal jile asaka war ci ceeb def ko ci camion fekk yaa ngi war a génnee vingt million mbaa dix million mbaa nga jënd ko dugub mbaa mboq yóbbu ko commencé ko tasaare kër gu ne nga dugal ko saako ceeb ak ñii ñenn ña bokkaatee amuloo asaka asakay xaalis lañ la génneeloo kenn génneewuloo la ceeb joxal gaa yi seen xaalis bi kuy jënd ceeb jënd ceeb kuy jënd dugub jënd dugub kuy kuy def ab def dépense kuy xotti yére def xotti ay yéreem kuy fay bor fay bor nit ki danga koy jox la ngay génnee moom nag lu mu cay def moo xam. waaye defal ko ci yow la nga bëgg wala nga defal ko ci li nga jàpp ne moom la bëgg ku la wax ne loolu la bëgg même bu ko bëggoon amoo droit tamit def ko sax jox ko xaalisam bi rek lu ko neex def xaalisab jàmbur lu la ci soppandiku di fekk maa moom ñaar fukki junne loo cay wecceeku maa moom ñaar fukki loo ma ca yindee ceeb ah sa ñaar fukki junne kat mi ngi fi woon waaye dama la ko fa gindal ceeb koo ko wax kat mu ne la jox ma sama ñaar fukki junne yi soxlawuma ceeb bi kon yéen commerçant yi bàyyi leen ceeb bi ngeen di jënd bàyyi leen dugub ji ngeen di jënd di ko yóbbu ca àll ba te fekk mu nekkoon seen xaalisu asaka yi jël leen seen xaalis bi seet ña ko xeyoo ca dëkk ba gannaaw bi ngeen joxee ña ko xeyoo fa ngeen ko liggéeyee muy Sandaga muy marché Dior muy marché police muy marché Kaolack muy marché Touba foo liggéeyee am na ñu ko doon liggéey amatuñ dara seetal ñooñu nga jox leen ca la ca ëpp bu fekkee ñu nekk ca àll baa gën a sonn nga jël la gën a bëri yóbbu ko foofa 20 millions ngay génn jëlal 7 millions ya yóbbu ko àll ba jëlal treize millions yi nga nga nga nga nga séddale ko fii su fekkee ñoom ñu pexen su fekkee ne nag wax dëgg yàlla ñi nekk fii ñoo gën a sonn te fële jëlal quinze millions yëpp nga joxe ko fii jël cinq millions yi fële su fekkee ñëlee ñoo gën a sonn jëlal treize millions yóbbu foofa jël sept millions yi bàyyi ko fii ndax ñi lay romb seen xel nekk ca dafa bëri yow moodu moodu bi may déglu sax fa asaka ja jërul yónnee fii yaa nga foofa ca Italie wala ca Amérique wala ca Grèce wala ca Guinée eh, eh, wala ca eh, Libye wala ca feneen koy liggéey ak ndoor amul kayit koy liggéey ak ndoor wàññi nañ ko te waa kër a ngi ko yaakaar bu ne awma kenn du ko gëm ñu ngi ko yaakaar tey fu mu ko dégg mu sone ñu ngi foo ne ma ngay joxe numéro ya kooka boo génnee asaka jërul nga koy yónnee fii jox ko kooka yàlla fay la moom tamit ni nga yónnee mu mën a yónnee mën naa am tamit ay cëram dafa wàññeeku mën naa am dañ koo dàq mën naa am dañoo nangu ay kayitam kooka yëkkatil asaka ja nga jox ko ko moo gën nga di ko yónnee demeet kon ñooña lañ koy war a génnee yow commerçant bi bàyyil jënd dugub ji ak ceeb bi yow jarga ji bàyyil rendi nag wi di ko defi saam yooyu yëpp kenn santut la ko xaalisab jàmbur daal jox ko lu ko neex mu def waaye bu ko ci defal ah, demeet mu des nag yow baykat bi yow moom jàmbaar nga lool yaa ngi génnee dugub jë bu ca gerte ga yaa ngi koy génnee waaye sa problème bi mooy maa ngi lay ñaan ña ñëw di la góoble ba ngoon jot wala ba une jot nga takk ay takk yëkkati ko ne bëgg koo defee wàccantal làqoowaale ci asaka daganut amoo asaka benn takk mënoo cee wàccee ku lay góobal wàccoo ceeg yàlla loolu yàlla du ko nangu moom kay te lay góobal ci boppam góob na ba ngoon jot par force da nga koo war a jox dara mu yóbbu ko jox ko takkam mu yóbbu bu demee nag te moom mu xeeyoon na asaka carrément xam nga ko nga jënaar beneen takk takk ko ne ko asaka jaa ngi wala nga yéene ko sa xol rek waaye takkab asaka jooju sax nga ñaareele la ko su fekkee lim la góoblee tax sa xol sedd nga jox ko takkab wàccantal yëkkati takkab asaka jox ko sax amuloo asaka ndax bu la deful toon loolu doog ko defal fekkee tamit waa dafa laa góoble nga ne ah joxoon naa ko wàccantal naa ko joxat asaka wala ah man kay sax joxoon naa ko wàccantal su ma góobee dinaa ko jox asaka waaye wóor na la péng ne bu la góoble si wutoon du bokk sa ba amoo asaka ndax lam la defal la tax nga def loola moo ko moom waroo ko waroo koo santaas waroo koo santaas ngir lim la defal kon wàccantal yi yéen baykat yi kenn mënu leen ci asaka waaye dee leen mooy tundiku wàccantal yi dee leen mooy tundiku làqoo loola wàllu yooya asaka ji boo ko génnee yow commerçant bi walla yow baykat bi wala yow jarga ji mën nga koo jox képp ku ko xeeyoo ba mooy ñett loo ko mën a mën a joxe bàyyi bi sa waajur yi sa baay sa yaay bu ko jox asaka sa baay ak sa yaay buñ néewee doole ba war a lekk asaka yaa leen war a yor leen jox ñuy lekk di leen xottil yëre utal leen fuñ dëkk sa baay ak sa yaay nag buñ xëyewut asaka kon rawatina buñ ko xëyewoo ko ci yow ndax yaa leen war a ko xëyewut waxi kon kenn du jox sa waajur asaka ñaareel ba yow mi may déglu sa doom sa doom yii nga war leen a dundal jigéen ñaak góor ña bu ci jox kenn asaka sa doom bu néewee doole bay war a lekk asaka yaa ko war a dundal comme yaa ngi man dara bay génnee asaka kon sa doom yi bu ko jox asaka dimbale ko sooy dimbale dimbale ko te yàlla tax eh, beneen bi tamit yow yow yow yow jëkkër ji may déglu sa jabar ji bu ko jox asaka génnee sa asaka nagu jox ko sa jabar wala nga génnee sa asakaay dugub bi jox ko sa jabar mbala xaalis bi jox ko sa jabar daganut amoo asaka ñett ñii rek ñoom lañ mën ta jox asaka kenn du jox sa waajur asaka kenn du jox say doom asaka kenn du jox sa jabar asaka waaye jabar nag moom mën naa jox jëkkër ji asaka waaye benn sarta la am bu la sa joxee asaka xotteeku yére nga sol wala nga dem fayee ko bor wala nga dem jëndee ko yàpp muy dibi joo xam ne indiwoo ko ci kër gi waaye boo ko defaatee dépense jabar ja lekk ci rek baaxut ndax asaka sarax la sarax bëgguñ mu dellu ci ki ko joxe wa moo tax Omar ibnu Xattaab mos naa saraxe aw fas kan ko sarax man fas lool fas wa romb ko rek xelam daj ca mu bëgg koo jënd yonent bi ne ko laa laa doo ko mën a jënd laa tabiaw bu ko jënd mukk li annaha sadaqatun sarax dañuy bañ muy dellu ci ki ko joxe woon yonent bi ne ar raajix fi sadaqatihi ka raajix fi qayihi ku saraxee ba pare jëlaat ko mi ngi mel ni ku lekk ba pare waccu lekkaat ko kon yonent bi tere ko ko ne ko laa tab laa tabiu bu ko jaay yow wala tastari bu ko jënd waaye tamit ndax li annahu sadaqa arraja fi sadaqatihi ka raja fi qayihi aw kama qaal kon sa jabar mën na laa jox asaka waaye sarta ba bu ko defaat dépense rek faye ji ko bor xotte ji ko yëre maye ko wala nga dem defi ca laneen boo ca mënta ñàkk jënd yàpp jëndee ko yàpp yow kenn nga lekk ci wala sa doom yaa sa doom waaye bu ci gi lekk kon loolu rek mooy condition ba bu loolu dàqoo dara nekku ci kon asakaangoog ñett ñi mënuñ leen koo jox waaye tamit ñeneen ñi ca des nag sa doom yi bàyyi yeeg sa doom yi nijaay yeeg sa nijaay yeeg sa bàyyi tax yeeg ñëpp mën nañoo jël asaka waaye maa ngi lay ñaan bu ko def asakaay biir néeg asaka joo am ne génnul sa néegu ndey asaka joo xam ne génnul sa néegu baay te fa nga ko liggéeyee ñi ko gën a xeyoo fuuf sa néegu ndey sa néegu baay ña nga fa loolu daganut asaka ju génnul nii rek moo fi nekk léegi daanaka daal joxal ma sama tànta joxal ma li sama magu baay su ko defee ñoom ñu foog ne yaa ngi leen di dimbale da nga war a dimbale te fekk yow ah, li nga leen jox ñoo ko moom mu toog di la gërëm rek man de waa ji daaw yónnee na ma ñaar fukki junne fekk yaa ko moom. man koy démb koy sama sama doomi nangam ji ñoo ne ma juróomi junne fekk yaa ko moom sàkkal ndimbal ci say jege ñaale seet asaka ña ko gën a xeyoo nga yëkkati ko jox leen ko waaye yëkkati xalal joxe ko ba pare tamit te baaxut dara jër dara jëru ko asaka yi biir biiram nii baaxut ñeenteel bi asaka ji boo koy génnee deel joxe nu xam doole noo joxe nu gën a xam doole mu gën a baax yaa ngi def asaka ji daal asakaay vingt millions nga génnee partagé ko rek ñeenti nit bu bëree ba bëri juróomi nit ñii kenn ku ne am am cinq million wala ñii am deux million wala ñii am tabaarakalaaw trois millions nga jox ko xale yu am jom te néew doole ñu mën caa jaaree bu déwénee ñaar fukk yooyu nga jox ko wala fukk yi kenn ku ne génnee asaka ndax kan ñi néew doole ñëpp bu leen ñi xam doole ñëpp séddoo woon ñu jeex tàkk lii nag buntu la ci séddoo leen nga fekk ku mënutoon nga asakaal ko ba man boo lëggee moom tamit keneen manaat keneen manaat loola lu ama am solo la waaye asaka yoo xam ne da nga koo mille francs deux mille francs fenn fu nekk sa asaka dugg fa kenn ku ne balaa benn fan mu jeex toog naan ana asaka ja ana asaka ja loola tamit bëgguñu ko asaka nu mu gën a amee doole rek mu gën a baax ndax li ngay joxe fa mu bàyyeekoo bu fa yàqut fa mu jëm du fa jariñ loo bëgg mu jariñ fa mu bàyyeekoo na fa yàq fa mu jëm dana fa jariñ bu loolu xamut daggu du jariñ su ko defee kon wax naa la gaawee gaa wax naa la yéene gaa sellal gaa wax naa la bañ a soppi gaa ci di ko def ay saami yàpp wax naa la wàccantal yaa xatta wax naa la tamit yow commerçant bi bu sa waa dëkk néewee doole yàlla may ne la wërsëg na jënd camion ceeb wala dugub heure nawet nga yóbbu ko dimbalee leen ko bu heure asaka jotee nga seet génnee asaka ja muy xaalis ña ko xeeyoo foofa ca marché ba ñëw doole nga jox leen ca bu ko ñee gënee xeeyoo nga door a yónnee la ko des foofa jox leen ko xaalis lu ñuy def ñoom ñoo xam waaye bul ko jëlee ci ko defati ceeb loola yëpp baaxut lu jara daw la kon asakaangoog ci xeet ya asakaangoog ca gaawe ga asaka ngoog tabaarakallaahu tamit ci sellal ga ah mu des nag léegi koo xam ne du ñàkk ku may déglu ne ah man de xamee huma woon nii asaka te am naa ay xat yu bari yu ma génneewut asaka maa ngi lay ñaan nga fay ko daaw génneewoo daaw jéeg génneewoo yaa ngi woon sa cantine bi su fekkee daaw jooja xamoon nga sa xaalis nam tolloon daaw daal vraiment jàpp naa ne su ma defoon inventaire war naa mën a xam vingt millions diggante marchandise maag xaalis ba ca génnee te jot te sànkuma ko mën nga génne ci asakaayu vingt millions boo ko xamul nga jàppee ko lu a bëri rek loo xam ne xur na dëxëpp waaye du manqué nga génnee ko ca noona buy daaw jege tamit nga defee ko noona daawaati jég noona nga jaral du ko nag tuub jéggalu yàlla ci yéexe gi nga ko yéexe ceer rek som bu am doole nga ne lii daal def naa ko muy asaka yi ma faatoon yëpp maa ngi koy tuub nag di ko jéggalu yàlla ci ñàkk xam gi ci yéexe gi li nekk ci sama dund yëpp dootuma dalati loola tamit yow mi may déglu te asaka mos laa faat te xamee woo ko nii maa lay ñaan nga dabaatal li passé woon ca anam yooya léegi nag mu des maanaam commerçant bi ndax baykat bi moom gannaaw am na lu mat juróom benni bëri ko rek lu mën a nattee moo xam fukkeel ba la jarga ji moom comme xam nañ ñeen fukki nag rek wala fanweer buy fukki buy fanweeri nag tabiixu la aj si yëkk la ñaari at buy bëlee ñetti xat muy muy mu nekk maanaam ab aw wëll ñeen fukk ya bu fekkee na nag fanweer la nga génne tabiixa borom ñaari xat ya su sana tey ni la fuqahaa yi wax su fekkee nag yow euh, ay xara nga xam ne ki bëy ñeen fukk la su fekkee ne timit fa la nisaab ba commencé su fekkee xaalis la eh, yaa ngi denc wala ngay liggéey di fayee koy denc yu mel noona un million deux cent la un million cent la commencé jëm ba un million deux cent euh, loo ko gam-gamlee su ko defee nag bu boobaa ñaar téeméer na juróomi dërëm un million bu ne vingt cinq mille yow commerçant bi may déglu nag yaa ngi yore di ambila walla nga yore sa marchandise mi borom xam-xam yi ñaari wax am ñu ne xaalis bi nga tàmbalee commerce bi su fekkee moo mat nisaab mat na un million deux cent bu del siyaatee ngaa war a génnee asaka na fekk loola la nga tàmbalee yaxu xaalis ba mat nisaab ñu ne ah kay sax même bu fekkee xaalis ba sax yax ba matul nisaab mais dugg nga ci bu tab commerce rek ak loo mën a jaay yaa xam su boobaa xat mi dellu si na daal defal inventaire xaalis bi nga xam ne jar la nga ko ca te sànkoo gut xaalis bi nga xam ne nag moom tamit marchandise mi jaragut te nga yaakaar ne dana jar waaye yaakaar gi tim mooy yaa ngi xam ne xëy ne jaay ko rek lu mu lambu lambu yaa ngi koy ku ne na ñaata nga ne ko ñaata su boobaa nga commencé ko xayma xayma ga nag ñaari wax ñii ne ci liñ ko jëndee woon ñii ne ci liñ koy jaayee lépp xalil wax na ko waaye nga ah nag lu ci mën a am boo gisee nag la ko la nga jëndee woon fuqahaa yu bëri wax nañ ko waaye ñu ne la nga koy jaayee tamit ñu bëri wax nañ ko la nga koy jaayee nag boo ko seetee moo gën ndax ñaar moo gën ndax suba doo loru doo lore soo ko xaymaa ci li nga koy jaayee doo loru doo lore te diina ji diine laa darara wala diraara la su fekkee danga nga koo defee nag ci xaymaa yi li nga ko jëndee woon ñaara mën a xam benn yow nga loru walla nga lore fan ngay loro yaa ngi ko jëndee woon marchandise mi dix mille francs lamb na xewi na ba léegi mënta jarati loola mille francs cent mille franc euh, mille franc ak mille cinq cent ak deux mille la mën a jar nga bëgg koo xayma la nga ko jëndee woon loru nga mais tamit yaa ngi ko jëndee woon dix mille te mën naa jar léegi léegi quinze mille franc nga bëgg koo génnee asakaay dix mille su boobaa tamit lore nga moo tax daal boo bëggee bañ ci loru ak lore daal xayma ko ci li nga ko li nga koy jaayee su boobaa doo loru bu bu wàññeekoo ba lamb waaye su boobaa tamit doo lore bu yokkoo gannaaw bi nga xaymaa nag xayma nga ko ne normalement daal kii mën naa koo jaayee dix mille yàlla dogal nga xayma ko dix mille ba génnee asaka ja benn waay bàyyee koo fële ñëw man ci cinquante mille ndax nag prix marchandise amul prix ñu jàpp ne sax marchandise amul prix moo tax ñu ne kon nañ ko xayma ci lam ko jëndee woon rek ndax li koy jaayee amul prix mën nga koo xayma tey dix mille nga jaay ko cinquante mille su boobaa nag boo ko xayma woon dix mille yaa ngi jëndee huit mille ne mën naa koo jaayee dix mille yàlla dogal nga fa jaayee ko cinquante mille quarante mille yi sa bénéfice doo ci génnee asaka moom la Cheikh Khalil ne wa ziyaadatuhu mulghatun mu ne ndollal googa kon loola luñ neenal la soo demee nag téere ba ñaar la ñi dañ ko bindee xayin ne luñ neenal la ñi bindee ko xaafun ne mulqaatun luñ sànni la ñaar yëpp baax na kon asaka ngoog li gën a dal xel daal mooy la nga koy jaayee waaye boo gisee kuy xaymaa ci la ko jëndee tamit bu ko contre yax wax na ko yax yaxal na ko boroom xam-xam yi wax nañ ko soo gisee ku koy xaymaa tamit ca lam koy jaayee bu ko contre yax yaxal na ko borom xam yi wax nañ ko su ko defee nag kon def nga inventaire li nga jarle ci xaalis sànko gudd deux millions la di nga inventaire bitig ba dix millions la kon yow asakaay douze million mooy li la war million bu ne nga génnee ca juróomi junne su doon nag douze million yu teg ñaar fukki junne ñaar fukki junne tamit da nga ko génnee asaka de bu tegoon fukki junne fukki junne da nga si génnee asaka de bu tegoon mille francs sax mille francs yi da nga si génnee juróomi dërëm même bu tegoon cinq cent francs cinq cent francs ba da nga cay génnee ñaari dërëm ak genn wàll xaalis amul lawxaas lawxaas mooy li nekk ci diggante ñaari farata yi kooku xaalis amu ko xar euh, euh, cexe moom mooy li nga tuddee man ndox teef am na ko ndax euh, moom law xaas ya dana bëri lool boo demee ca xalil bunt bu njëkk ba diggante law xaas yaag ca nag yaag law xaas ya ca xar yaag bëy ya law xaas yaag ca ca gëléem ya yooye dana ko ci indi benn bu ci nekk waaye yooyu boo delluwaat ca téere yooyu dana yomb waaye li ma bëgg a xam rek mooy ne nag moom am na law xaas li ma bëgg a xamle xar ak bëy am nañ law lawxaas mooy loo xamee ne nii da nga koo am dafa nekk ci diggante ñaari farata ndax li mel ni tey boo amee ñeent fukki nag xar ñeent fukki xar benn xar boo amoon juróom ñett fukk ak nangam ak li muy bëri bari bari feek matagul téeméer ñaar fukk ak benn lépp lawxaas la demeet kon yooyu yëpp say lawxaas lañu moo nekk ci diggante ñaari farata yi waaye xaalis moom wala wurus amul loola lu ca tegu mu tuuti tuuti danga koy génnee xaale asaka ah, su ko defee kon nag asaka ngoog xam na ci xeet yi xeet yoo xam ne dañ leen di boole lu mel ni wurus ak xaalis boo xamoon fukki dinaar ak téeméeri dërëmi yoon dañ leen di boole da am ci wurus am ci dinaar boole yëpp nga génnee asaka nga boole boole mën nisaab nag yi dafa bëri ay ay xeet nag yi gëbro yaag nag yi sénégalais yaag nag yi ñu ratt meew mu bari maag yëpp nag rek la su boobaa tamit yooyu yëpp da koy boole nga génnee ko asaka nag yi wëtti yëg ak nag yi ñu yefal ñu nekk ay tiir yëpp da koy compté xale ci asaka ja moo tax waajo ba ma laa ne ma waaw nag yi ñu pompé nag moom ndax sariya may nañu lekk ko ma ne ko nag lañu ñu lislaam lekk maanaam lislaam daal nag la ñu lekkaloo nag wa nag dañ koo pompe ci ñax wala dañ koo pompe ci ngooñ wala ràkkal wala machine a ko pompe suñu woon nekku ci uhilla lakum bahimatul an'am rek la alquran wax lu ko pompe waxut ko nay nag rek comme nag la rek mën nañoo lekk loolu tamit ci ngay dugal ganaar yi ganaar yi di élevage suñ ganaar yi amul sépar amul séparé ganaar la ñu lekkaloo rek lu mu ne ba nekk ganaar suñu yoon néew ci xar yaag bëy yaag tamit noona lañ mel demeet su boobaa nag am na xew yu ñuy boole xar ak bëy dañ koy boole soo amoon bi ñaar fukk bi ñaar fukk man na nisaab muy ñeent fukk ñaar fukki xar ñaar fukki bëy su boobaa nag da ngay génnee la gën a not foofa su fekkee bëy fa gën a not donte euh, nga nga nga génnee bëy su fekkee xara fa gën a not nga génnee xar wa in xaala fatku sax la xalil wax donte dafa wuutee sa gàtt yi yow xar nga xammee yow ma bëy fa not bëy ngay génnee ko yow bëy nga xammee xara fa not kon xar ngay wut nga dem nga wut ji nga génnee ji ko xeeti nag yëpp dañ koy tàppee xar ak bëy ca xeetam yu bari yëpp dañ koy tàppee mu ngoo gëléem ak façon xam yu bëri yaat dañ koy tàppee lu mel ni euh, maanaam xeeti mbay yi tamit euh, dugub muy sunaak saañu man lañ leen la boole waaye mboq moom doo ak kenn ceeb doo ànd ak kenn li gën a bëri tamit bés yi ñu ne du ànd ak kenn gerte yow ma koy génnee du ànd ak kenn demeet yooyu yëpp ay xeet lañ yoo xam ne ñoom kenn mboq du ànd ak kenn moom kenn dong mooy ànd mu des nag euh, takkaay jigéen ñi jigéen gi yore ay takkaayam takkaay ñaari xaaj la su fekkee da ngaa yore say takkaay di luye da yore say takkaay daal xamee xamee yéeney takk ko rek wala yéeney luye ko rek mu nekk noona waaye du takkaay boo jël mu nekk jëmmi xaalis boo xam ne da ko di ci yaxab xaalis takkaay daal fekk yaa ngi xamee yéeney takk ko rek lu mu bëri bëri doo ca génne asaka wax jooju gën a wér loolu la lu dul mu ngati ko bu fekkee dafa mu ngati defar ko takkaat ko dafa mujj soppeeku di xaalis kon nag danga koy génne asaka xayma lam toll rek ci ay million nga génne million yooyu asaka yow boo ko génnee ci xaalis baax na boo ko génnee ci wurus baax na kon takkaay yi jigéen ñi loola mooy atte ba wax jooju moo ci gën a wér donte am na ñeneen ñu ñëw ne dañuy dañuy génne asakaay takkaay imaamu Malik d'accord ca loola gis na hadis ba waaye jëlu ko kon li Malik tànn daal takkaay feeg yaa ngi xam ne yéene takk ko loola kenn du ca génnee asaka eh, mu ngoog takkaay nag boo ko seetee mooy liy jigéen gi di taaroo ñaari xaaj la luñ daganal ak luñ daganalut takkaay bi nga xam ne daganaluñ ko ñëwal jigéen mooy loo xam da koo jàpp lu mel ni jaas yi jël jaas yi xaalis wala jaas yi wurus jigéen moom ko ku daganaluñ ko jigéen kenn xare ji loolu ko kooku xaalis moom koom loolu da koy génne asaka dégg wax jog boobu boobu jaasee xaalis ak wurusam ak yooya wala nga jël karwaas karwaas ak or nga def ko ko noona jublu ci kii rek xaalis rek wala beew rek comme man na saab rek da nga see génne asaka quatre-vingt-cinq grammes bu ko manee mu ngoo ñu ba tey tamit loolu ci lañu yéegal góor góor warul takk wurus góor nag bu demee wut ceen ak oram ceen ak wurusam ak yooyu ne ma ngi koy takk ñu ma ko mat quatre-vingt-cinq grammes lam la ko def ak jaaro la ko def ak euh, seen la ko def da cee génne asaka ndax dafa ko xaraam ndax góor mayuñu ko lu ëpp ñaari dërëmi yoon amu def ko benn ab jaaro bu ko xàjjalee sa xaraam na demeet euh, loolu rek lañ ko may waaye nag fakkaay loo xam ne dañ koo daganal moom laa la waxoon Maalik ne ne kenn du ca génne asaka feeg yaa ngi xamee xéenee takk ko Abu Hanifa ak Mujaahid ak Zahriyu mu ne asaka war na ca ñu ngi tegtaloo xadiisu ibnu omar bi benn jigéen a ñëw ci yonantu bi ànd ak doomam doom jooja nag nekk na ca loxoom ya ñaari njare yoo xam ne ni yu tal lañ ci wurus yonantu bi ne ko ndax yaa ngi ciy génnee asaka ndax da nga génnee asaka ki ca njare doom ji ah, moom ndaw si ne ko déedéet yonantu bi ne ko soo mooy tuxut bu yowmal xiyaamee sa ñaari njare yi yàlla soppil la ko ñaari njare ca safara foofa rek ca saasa moom la summee ñaari njare ya sànni ko jox ko sànni ko yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam yonantu bi nag boo ko defee ndaw si ne ko yonantu bi ne ko lii ne asakar nañ si génne mu ne ko déedéet waqaalat huma lillahi wa li rasuli jox naa ko yàlla ak bi boobu hadis abu daawud a génne ko ak nasaayi yu ci sanad boo xam ne bu dëgër a dëgër la xaakim tamit wéral na hadis boobu moo tax hadis boobu moom la imaamu saafe yu jël abu hanifa moom la jël mujaahid moom la jël imaamu zuhri yu moom la jël moo tax ñu ne kon dañ cee génne asaka boo jëlee tamit beneen hadis bi naa Aïcha moo wax ne dugg na ci yonantu bi sa alayhi wa sallam euh, yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam gis ci loxoom ya ay takkaay yonantu bi ne ko lii lan la yow Aïcha mu ne ko maa ko def rek di ko taarloo euh, léegi nag yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko da joxe asaka ja da ca génnee asaka mu ne ko déedéet yonentu mu ne ko yaa ngi joxe asaka ji mu ne ko déedéet mu ne ko kon huwa hasbuka minan naar sa takkaay lii boo ci génneewut asaka dana la jural ëllëg safara kon ci ñaari hadis yooyu ñu jàpp ne takkaayeelu jigéen yu muy gànjaroo donte gànjar gu ko lew la gu ko dagan la ñaari hadis yooyu lañ tegtaloo ne kon da caa war a génne asaka su ko defee nag kon ñi jàpp ne tamit nag duñ ko génnee asaka ñu ngi tegtaloo asmaawu bintu yësit moo waxal boppam ne dugg naa man mii ak sama tànta ci yonantu bi sallallahu alayhi wa ngi yore woon ay takkaay muy ay ay lam yoo xam ne wurus la yonentu bi sallallahu alayhi wa nag wax ne ndax yéen a ngi jooxe asaka ji yéen ñaar ñu ne ko déeréet mu ne hee kon de ragal naa su ëllëgee yàlla defal leen seen ñaari takkaay yi jënd takkaayu safara ya kon yooyu yëpp mooy hadis yi tegtale ne ñu wax ne daal takkaayal jigéen dañ koo war a génne asaka seen sukkandikuwaay foofa la waaye Malik moom ak imaamu Saafiyu ak Ahmad ñoom ñett ñile dañoo wax ne laysa fil hulwi zakatun ñu ne takkaay kenn du ci génne asaka ndeem kooka mi ci jigéen nga ma ngi ci jublu ak taarloo bul wax ne nag Malik dafa weddi wax yonantu mënu ko jéemut ko timit sax bul wax ne Saafiyu dafa ko weddi waxut ko mënu ko jéemu ko sax waaye moom tamit ñoom dañoo xam ay tegtal tamit ci hadis yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu ngi tegtaloo ci wax ji ci ay asaar yoo xam ne yu wér a wér la bi abdullah abdourahman ibnul qasim moo ko solo jëlee ko ca baayam mu ne aïsatu mi soxnaa yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama nekkoon na di topp ko ay jigéen ay doomi ay jigéen yoo xam ne ay doomi mbokkam lañ naa doomi abdourahman lañ nekk ay jirim yoo xam ne moo leen doon yar euh, muy taxawee tamit seen ak toppatoo ñoom ñoo amee woon nañ ay takkaay waaye saydatuna Aïcha daanul génne asaka ci seen takkaay ya kon euh, loolu hadis boobu Malik moo ko génnee ak Bayhaqi yu loolu mooy premier tegtal bi ñaareel bi ba jëlee nañ ci Naafiya mu ne eh, mu ne Omar nekkoon na di takkaayal doomam yi ak ay jéebéeram yi ay takkaayal wurus ànd ak loola lépp nag daanul génnee asaka ci seen takkaaya te Omar kenn gënu koo xam diine ji ñetteel bi Asmaaw binti Abi Bakar nekkoon na moom ci biir takkaayal doomam yu jigéen yi ay takkaayi wurus ànd lool loolu lépp daanul génnee asaka ci seen takkaay yooya asaar yi nag moom la Malik jël xam ne ñii ñoo mujj ak yonantu bi ñoo gën a xam la yonantu ba mujjee ndax xadis mën naa ñëw wér fekk fol nañ ko bu yàgg jëfeetuñ ko ña fa mujj nag xam ko lañ doon def te ñu nekk ñu ragal yàlla ñu sell ñu la gën a gëm diine gën la koo bëgg moo tax maalik sukkandiku ca loola nekkoon takkaayal jigéen fekk ma nga amee yéene takk ko muy takkaay loo xam ne dagan na ko su boobaa dara nekkut ci bu ca génnee asaka imaamu Saafi yu tamit loolu la gëm kenn gënu koo xam hadis kenn gënu koo xam sunna loolu tamit la gëm imaamu Bayhaqi loolu la gëm te dañuy wax ci ulama wa xadis ne moom xadis bu ñu ko soloo bu mu soloo rek xadis bu wér la kon lii mooy ca takkaay ca wa woowa ñee lañ lañ ca wax wax naa la ko Abu Hanifa ak xadis yam tegtaloo imaamu Malik ak asaar yu dëgër yi nga xam ne tamit tegtaloo na ko ku mu ci ñooñ wax naa la ca lama ca xam kon asakaangoog ca takkaay la xam naa nag asakaay yenn yi nag yenn takkaay yi nag jigéen ñi di tiitaroo xam nga takkaay tamit yu xem rek nga nga taarloo ko doy na nga xemale ko ci sa doq gile walla ci sa loxo yi sa sa jaaro yi waaye nag sa yaram wi fu ne nga bëgg faa takk or jublu ca tiitaru lii sax dangay ngay dem ba gàccoo ko yooya nag moom ku ko doon defalaat ijtihaad ci ji jamono ci baat man ngaa wax ne yooya nag ñiy puukare woo di ko tiitaroo waaye dugut ngir ak taar waaye tiitaroo rek la yooyu moom dees na ci génnee asaka waaye nag am maa yële moom imaamu Maalik nen daal comme takkaay la rek ca eh, ay njara la wala seen la boo takk jaaroo la Maalik nee na duñ ca génnee asaka Maalik nag lu mu wax ci diine ki ñu bàyyi ko koo xam ne bu gagaan yonantu bi moom mën na koo gàgganti lu mosa waxti mooy toog ca kanam yonantu ba di jàngale di joxoñ di di di di di junj sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa kooka lu mu wax ci diine ñu bàyyi ko Malick moomu la sëriñ Touba tànnoon ne maa ngi leen di tànnaloo yéen murid yi na ngeen topp yoonu imaam Malick wu leer woowa Malick moomu la Seydil Hadji Malick tànnoon ngirëm ma Seydil Hadji Abdoulaye Niass tamit moom la tànnoon ngirëm ma Cheikh na Ahmad al Tijani ngiru Malick tamit la jëloon di ca sukkandiku lu gën a bëri ci ay xatteem donte xut bu moom du tënkuwu ci ngir ndax moom moo ëpp ngir ah, bu des nag alali alal yi ñi denc ci banque bi su fekkee da jël sa alal ji daal bàyyi ko ci banque bi mat na un million deux cent jëm kaw atal na génnee ko asaka ñëpp ci dëppoo intérêt bala banque bi tegal mën nga koo ñàkk génne asaka moomoo ko waaye maa ngi lay ñaan bu ko bàyyee banque ba di yokk seen doole jël ko nga topp ci yàlla wala nga jaamu ci yàlla waaye bu ci topp yàlla topp yàlla ak jaamu yàlla duñ benn jaamu yàlla ci ay jaamam topp yàlla sa digganteeg sa borom su boobaa topp ci yàlla mooy seet ku néew doole nga jox ko ko bu ko tuddee sarax joxe ko ko noonu nag tuddee ko ndimbal wala koo xam ne ma ngay ngoro ngoro ga të wala koo xam doom xamul lu mu ko ngéntee kuy tabax tabax ba mënta matak soxla yu taxaw yooya borom xaaju xoo ko lool li nga jëlee ci intérêt banque yi joxe ko ñoo ne nga jaamu ci yàlla ndax jaamu yàlla ci ay jaamam su ko defee nag bu ca topp yàlla mooy bu ca jënd yëre di ko sol bu ca jënd oto bu ci tabax kër bu ci wut magasin bu ko def dépense yooya sa digganteeg sa borom la topp ko kon intérêt banque borom xam-xam yi notamment imaamu Qaradawi loolu la ca wax kenn du ko bàyyee banque yi di leen yokk doole kenn du ko jël tamit di ca topp yàlla waaye dañ koy jël di ca jaamu yàlla sëriñ lu Mbacke moo daan wax ne jaamu yàlla ci ay jaamam topp yàlla sa digganteeg sa borom kon yooyu lu jar a xam solo lu lu xam a xam solo la lu jar a tamit maanaam bàyyi xel la kon intérêt yi banque yaa ngoog loola moo cay atte ba mel ni kon daal asaka ngoog ak lépp loo xam ne nii aju na ci xam naa boo ma toppee suba ci waxtu wi incha allahu ma farañ fànceel la ñi nga xam ne la ñuy war a jox asaka rek buntam asaka jeexee foofa su ko defee léegi ñu dellu si kaat beneen buntu boo xam ne moom la ñuy war a génne incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. génne ba pare sa yaxu xaalis ba ndax yaa ko xenu ñëw indil ma ko ne mi ngi nii naa ci génne asaka ba pare la ñuy def ca alal gi ñu door koo def suñuy séddoo bénéfice ba door ko séddoo ci nañ ca juboo woon fekk na nag indil nga ma yaxu xaalis bi lépp ne ma mi ngi nii. lii la woon lii moo sa juddoo ñi génne la ba pare door koo génne asaka ca noona soo demee ci Cheikh Khalil ci bunt buntab asaka dana la ko détaillé ci ñaari xaaj yooya kay def ak waa ji xiraat te fekk moom commerçant la comme moom ak kay def ak waa ji xiraat te fekk moom dugut commerçant kon su boobaa ñoom ñaar ñi nañ koy defee duñ nekk benn nekkul benn façon ñaareel bi ci asaka yi bokk ci xew léegi mooy promoteur yi xam naa ay promoteur lañ ci wàllu terrain dañoo def fu ñu gis suuf mu baax rek ñi dem jënd fa ay hectare suñ ko jëndee hectare ya ba pare nag defar ko ba mu baax dagg ko pare ay par parcelle dugal ndox ma ak courant ba commencé tamit di ko jaay parcelles yi deux millions yi trois millions ci lañ mën a juboo ñoo xam kooka tamit commerçant la rek moom ñëpp a xem moo tim bitigam ba ñoo xem képp bu xat mi dellu see xaalis ba ca génnee te sànkagut ko na ko boole kayma ko terrain ya fa des ca siit booba ak fu mu ko mën a am te mu leen di jaay mu set terrain bu ne lu mu war a mën a jar bii trois millions la bii quatre millions la te am naa fa quarante terrain amoon naa deux cent millions yu ma bàyyi woon ci banque bi nga boole yooyu yëpp ak xaymaay terrain ya lañ mën a jar nga boole lépp génne ko asaka un million bu ne vingt cinq mille waaye naan damay dekk promoteur ci suuf si rek man du ba génnee asaka kooku tamit maanaam njuumte la yow moomu di yëngatu ci wàllu suuf noonu ngay génnee asaka yow tamit transporteur bi may déglu yore ay oto moo xam ay kaar lañ moo xam ay taksi lañ oto bi daal kenn la ci ñaar yi su fekkee day dem di defi transport rek waaye jaayoo yow day dem di transport rek di jaay bu di indi di génnee dara xaalis ba di génnee yax ba di génnee dara bu set eh, taxi ya werse la dix mille wala kaari njaga njaay ak yooyu werse la quinze mille ak ay vingt mille xaalis booba ñuy werse boo ko dencee ren ba déwén lu ca ñëw rek nga dencaat mu fekki ko la ca ñëw rek ba weer wa dellu siwaat xaalis booba rek ngay xool génnee ko asaka ndem ma nga fa ñaar téeméer wi ne juróomi dërëm un million bu ne vingt cinq mille waaye yaxu oto bi moom kenn xaymaalul la ko dara warul la ci bu ko génnee asaka bul wax ne lii la war a mën a jarak nangam sa yoon nekku ci yow daal la la oto ba génnee te sànq goo xaalis ba xaalis booba ngay génnee asaka yow mi nga xam ne transporteur nga waaye nag xam naa transporteur yu bëri yu may déglu ñu ci mën a da nga gis ko xam fukki oto te boo ko bettee woon mënta génne ñaar fukki junne dana bëri ko xam ne am na lu mat juróom fukki oto soo ko bettoon tey tamit mënta génnee loola yow mi yore tamit oto boo xam ne nekkul di transport mais oto benn yi nga yore muy tibbi suuf euh, euh, xaalis di ca génn wala nga yore peel yi ñuy tibb carrière yaag yeneen ya ca aju yow timit loola lam liggéey bu bu demee ba at mi dellu si xaalis booba yëpp mu liggéey te sànkoogut lépp danga nga koy génnee asaka waaye jëmmi camion baag jëmmi peel yaag yooya dara warul la ca yow jaaykatu beton bi li ma déglu wala sax nga ne yaa ngi jaay suuf jóor ko wala ngay jaay ay móol di jaay ay bërigo nekk ci sànca yaak ya ci xaju xat mu jot daal dangay ngay xayma la jaragum ca béton ba te sànq guloo ko ak la jaragum ca móol ya te sànq guloo ko ak la jaragum ca bant yaak ardoise yaak tiwil yaak ya ci xaju te sànq guloo ko nga boole koog la fa des te jaragut nga xayma ko ca lam war a mën a jar nga boole leen ñoom ñaar ñëpp totaale leen bu la joxee lam la jox ci xaalis lépp nga génne ko asaka un mil un bu ne rek nga génne ca vingt cinq mille kon asaka bàyyiwul kenn tey nag ñu bëri ñu may déglu ci ñu jàppoon nañ ne man kan mool rek laay jaay waruma génne asaka kii ne tamit man der rek laay jaay Omar ibn Xattaab ba ko waaj a rombe yore der ba dafa ne ko xawim hu wala ut man xayma ko nga seet ñaata la donte der rek la su ko defee kon nag jaaykatu der yaak jaaykatu yàpp yaak ñoom tamit eh, nag ya ñu rendi woon ak dibiteeri ya xaalis ya sànq guñ ko la ca juddoo ak lañ tiim bisu bisu tay bi ñu war a génnee asaka te jaaye ko mi ngi nii waaye xam nañ ne tey xar mi su ma ko dibee dana dana war a mën a génnee quinze mille wala dana war a mën a génnee cent mille francs nga boole dibi joojaak xaalis ba ca génnee te sànq guloo ko lépp nga génne ko asaka loolu tamit valable na ci yow jaaykatu mburu bi yaa ngi may déglu yore fuur wala nga yore sax fuuru tàpp làpp yi noona tamit la jar ca mburu ma sànq guloo ko ak mburu mi mburoom tay mi jaragut lépp ngay boole maanaam nga xayma ko génne ci asaka ndeem da ngay jaay mburoog ca wàllu liggéey booba euh, kon nag liggéey yooyu lu ca waay mën di liggéey rek mënumaa tudd lépp waaye yi ma tudd dugalaale na yi nga xam ne ni tudduma ko da ko ci mën a déggaale yooyu yëpp kon dangeen koy génnee asaka euh, bu ngeen bëggee seen alal ji yokku su ngeen bëggee tamit seen alal ji sekki su ngeen bëggee tamit tabaarakalaaw seen alal ji barke kenn ku nekk la muy yëngatu bu weer wa dellu si waatee ca déwén sa na def inventaire la sànkoo gut ak la fa nekk te sànkoo gut mu mën koo xayma ak la sànkoo gut ca xaalis ba ca génnee lépp mu boole ko génne ko asaka ñaar téeméer yu ne juróomi dërëm un million bu ne vingt cinq mille ba lépp jeex tàkk ba mu xamee ko noona loolu kon mooy mooy mooy mooy mooy mooy atte bi ngeen xamee ko noona bu baax a baax a baax lu ci waaye mën di yëngatu waaye nag des na ci yow transporteur bi may déglu su fekkee yow transporteur bi nag da ngaa oto sa oto bi yaa ngi taf à vendre te tamit en même temps mi ngi taxé waale wala kaar la ma ngay dem di liggéeyaale wala camion la ma ngay liggéeyaale ku li ne da bagage nga ne ko maa ngi nii waaye kun la ñaata nga ne ko ñaata yow moom ñaari problème moo taxaw sa kanam oto booba lam liggéey te sànkoo gut weer wi at wi at mi dellu si na da ko génnee asaka waaye comme da nga koy jaay tamit oto boobu danga nga koy xayma la mu war a mën a jar ñaar fukki million la wala nangam nga xayma xaymaale prix oto ba boole ko la ci génnee te sànk ko lépp nga boole ko génnee ko asaka ca noona su fekkoon ne nag day dem rek di di taxi ji wala muy wala muy dem di liggéey waaye jaayoo kon la ca génnee la waaye yàqu oto ba bokkut ca waaye boo xasee taf avant di jaayaale rek kon dugg nga ci bunt buntab jaay euh, su boobaa da ngay xayma la ca génn ba pare xayma waale tamit njëgu oto ba lu mu war a mën a jar loo xam ne bu ñu la ko fayee nga jaay ko ci lu dugul njëg ak loru nga boole ko ak la ca génnee te sànk ko lépp nga boole ko génne ko asaka yaakaar naa dégg nga li ma bëgg a wax yow mi yore ay kër wala ay bul di ko luye tamit noona la demee comme que da ngaa tabax kër ngir loué rek loué rek la kon bàyyil la génnee ca luyaas ba gaa yi di far pay par weer loola bu del siwaatee daal ba ca weer wu mujj wa yëpp ngay boole rek totaale ko jàpp ne sama première weer bi am naa un million deuxième bi amaan naa beneen million muy muy muy muy deux ba ma demee kon weer wi daal ah, kër gi daal at mu ngi dana génnee weer wu dee dana génnee million bu dem ba douzième mois ba muy douze millions nga génnee ko asaka waaye yaxu kër gi kenn génneewul la ko asaka yaa ko moom dara warut ci su fekkee ne nag kër gi da nga koo taf à vendre di ko jaayaale di ko luyewaale soo demee ba weer wi dellu si te jaragut ak noona su boobaa nag ba ngay ba ngay war a génne asaka ca waxtu woowa tamit da ngay xayma waale kër gi lu mu war a mën a jar ñu ne quarante million lu ca luyaaseel luyee woon mu génne ko nga ne douze millions nga génnee asaka yi maanaam cinquante deux millions un million bu ne vingt cinq mille kon ki yore kër luyaas tamit atte boobu mooy atteem kon yéen ñi yore kër yi dee leen dee leen génnee asaka la kër ga génnee nag sa sànq gu leen ko waaye su fekkee yaa ngi luyee lu génn nga def dépense lu génn nga faj sa soxla dara fekkantewut xamoo dara kon lay tekki doo ca génne asaka su fekkee da ngay jaay kër ga nag boole koog di luye la xaalis bay génnee te fekkante bu dellusee ba ca ba mu yegg si ba nga fa nga war a génnee asaka danga koy boole waale xayma kër gi li mu war a mën a jar nga boole koog la ca génnee te sànq guloo ko lépp nga génnee ko asaka yaakaar naa li ma bëgg wax dégg ko fekkee déggoo ko tamit nga dégg ko rek laa bëgg ndax nga mën koo jëfandikoo euh, asaka yaa ngoog ci ñii ñëpp ci la ñu yëngatu yaakaar naa ne kenn ku ci nekk dégg na ca boppam dana ko gis euh, ki nga xam ne dafa yore euh, ay taxi noona bu ci des xanaa rek euh, borom parking oto bi ne borom parking yi tamit bàyyi leen xel da ngeen di génne asaka de yaa yore sa parking jëm itali bàyyi ko Espagne jul it jële jugee ko itali di jënd ay oto di teg ku ñëw ne la ñaata nga jaay ku ñëw ne la nangam nga jaay Euh, su boobaa nag bu weer wi dellu siwaatee ca at ma la oto ya ja jar te sànq guloo ko boole ko oto ya fa teg fas yéenee jaay ko lu mu war a mën a jar benn bu ne nga xayma ko boole kook la ca génnee te jara te ca sànq goo xaalis ba lépp nga génnee ko asaka kon yéen yi nga xam ne da ngeen a yore ay parking di jaay seen asaka ngoog yéen transporteurs yi seen asaka ngoog yéen promoteurs yi ci terrain yi seen asakaango yéen ñi nga xam ne da ngeen yore ay kër immobilier wala yeneen kër yu mën a doon di di luyaas seen asakaango yéen ñay yëngatu ca béton baag suusaak muul yaak yéen ñëpp tamit tabaarakalaaw seen asakaango kon ñii ñëpp ma wax nag bu fekkoon ne ñëpp ay génnee asaka di ko doxee nañ ko waroon a joxee kon tey ak ndóol dana fi jeex euh, agression bi dana wàññeeku soxor geeg xañaan geeg lépp dana wàññeeku ndax ku ñëw doole bu ko yàlla defarul xolom rek mënta mucc ci soxor waaye boo xasee am yenn yi dootoo talati lenn sax dootoo talati sax yenn yi bay bay tal yooya asaka yi nag ñuñ koy jox xam naa nag moo defee ak yow rek ma tàggatoo ak yow asaka ji daal boo ko liggéeyee ba mu mel nii ci ñëw muy génnee kii d'abord ki ñu ko war a njëkk a jox mooy faqiir faqiir nag yaatu na képp koo xam ne amuloo wu ren ba déwén rek maanaam faqir nga kon faqir yi bëri nañ de fuqaraaw yu bëri nañ de ko amul dépense ren ba déwén rek imaamu Malik nee na faqir nga kon ndekee léegi-léegi nit ki tabax état sam fekk xeeyoon na asaka léegi-léegi nit ki yore 4-4 fekk yore xeeyoon na asaka léegi léeg nit ki yore juróomi kër mbaa ñeen fukki kër fekk xeeyoon na asaka ku amul loo dundee ren ba déwén rek tabaarakallaahu asaka war na la faqir nag mi gën di dabee koo xam ne dafa bëri sarse xam nga léeg-léeg nga gis nit ki am na alal waaye sarse yi mu sarse woo mu tegu ci loo yi moo ëpp alalam su boobaa diggante fay njàng doomam yàq fayal euh, euh, diggante seen fourniture yaag diggante seen dundu baag seen dépense yaag seen dëkkuwaay yàq seen ordonnance yaag vraiment yooya lu mu bëri bëri alal munta labal lim am kooka faqiir la dañ ko jox asaka te kooku sax booy joxe asaka kooku lañ dëgg nga njëkk koo jox ndax dañoo bañ suturaam xawee ku mel noona manta bi kenn kum leb doo ko gëm ku mel noona manta wax kenn soxlaam kum ko wax mu ree ko ku mel noona nag euh, alquran nee na booy dem di joxe asaka njëkkeexal ca kooka kooku sax moo gën a xaajowoo miskin xam nga miskin mooy koo xam ne bu yalwaanul rek bu dund waaye nag rusuta yalwaan ci territoire yi ak ci gaaru ceer yeeg ci place jàkk yi publique yeeg yëpp fu mu yaakaar farax rek dem yalwaani fa bu taxawee borom essence bi nga xam ne am na waaye lim am mënu koo dundal jëlal asaka ji nga jox ko bu borom essence bi ndax lu tax kee ñàkkut ndax ku am ku mën a saraxu rek ñàkkoo ndax ku saraxu rek da nga gis ko la sarax kii nag moom mënta saraxu mënta yalwaani mënta wuññi suturaam ndax jàpp na ne ñëpp foog nañ ne jeexalu dara kon ku mel noona lañ war a jiital ci asaka yi kon ndeke ñi mën a lekk asaka bari nañ sooye boo rek ne ma daal mbooleem fonctionnaire yi te mooy ñuy fayeeku par koo ci dajeeg boo xeboo jox ko asaka ndax ñaareel waxoon naa la ko li ëpp ci ñoom balaa weer waa dee rek fekk dee nañ lu bari ci ñoom tamit balaa weer waa dee rek fekk weeru nañu kon lu ëpp ci fonctionnaire yi mën nañoo lekk asaka baykat yi waxi nopp ñëpp mën a lekk asaka daanaka ne naka noonu tamit euh, commerçant yi ñu ci bëri mën nañoo lekk asaka nit ki tamit mën naa joxe asaka ñu jox ko asaka joxe asaka terewul ne kenn waru laa jox asaka waaw waaw mën nañ laa jox ndax soo joxee asaka te fekk faqiir nga wala nga joxe asaka fekk yow miskin nga terewut tamit mën nañ laa jox asaka yàqul ke dara joxe asaka terewut koo mën a jël kon asaka ngoog ki ci njëkk kiñ koy jox mooy faqiir fakiir mooy ko xam lu ko doyut ren ba déwén ñaareel bi mooy miskin mooy koo xam ne xam na waaye lam xam doy maanaam mooy koo xam ne xamut dara bu yalwaanu rek du mën a dund ñoom ñaar ñu la alquran ne innama sadaqaatu lil fuqaraa wal masaakiin Euh, ñaare ñetteel bi mooy al aamiluuna ji aamiluuna ji mooy ñooy liggéey ca asakaya ñu leen tuddee jaraab nga xam ne ñooy dem di dagale ji asakaya ci dëkk ya euh, di ko def tama waxoon ne dëkk bu ne ñu war nañ koo formel seen bopp nit ñi daa ñoo ñu doy ci dëkk bi jub nañ maandu nañ nañ leen jiital ñu yore internat dëkk bi fexe ba daara ji am fi ñuy fayee koo ko fay nañ leen dessiner lu yàqu ci dëkk bi nañ nañ dem di ko doxal jubale nit ñi nañ leen dessiner bu waxtu asaka jotee nañ dajale asaka yi seet ko ñe ko gën a aajowoo ci dëkk bi lañ ci aajowoo tamit ñu jox leen ko defal leen ko amilu na lu ñu bëri bëri alal dañ leen jox asaka ndax xaalis dafa xeeñ ku koy séddale rek sa xel nekk ci moo tax sax kooku mën naa jël ñaari yoon su fekkee kay liggéey ci asaka ja dafa nekk di ab faqiir wala mu nekk di miskin mën naa taxaw fële ca raaba ne man miskin laa wala faqir laa ñu jox ko ba pare mu taxawaat beneen mu tàllal beneen loxo ba ne man amil laa damay liggéey ci asaka ji kon kooka mu ñaari yoon jël na ko asaka dagan na bokk na ci kenn ku mën a jël ñaar ndax ñi mën a jël asaka kenn ku mën a jël ñaari yoon asaka bëriwut moom amil ji ca ñooñu la bokk su ko defee kon nag euh, kooku mooy wala amiluna alaamiluna alayha ja alquran di wax ne euh, ba mu ne innama sadaqaatu lil fuqaraay wal masaakin wal aamilina euh, beneen bi nag mooy mu allafatu qulub al mu allafatu qulubuhum euh, ñooñu borom xam-xam yi dañ ci wax yu bëree bëree bëree bëri ay xeet lañ boo demee mën naa nekk ñoom ñetti fa ñetti xeet ñoom xeet bu njëkk ba mooy ñoo xam ne xéeféer lañ carrément waaye rek ñu jox leen asaka ngir pàpp seen xol yi Euh, bëgg ñuy ñëw ci lislaam xemem ko euh, ñooñu mën nañ leen a jox asaka te dañoo nekk ñu ñaaw làmmeñ soo leen joxee ñi tagg yonantu bi tagg lislaam soo leen joxut ñi xas yonantu bi xas lislaam su boobaa xalal poñet la nañ leen ko jox ndax ñu mucc ci seeni xay mu mel noonaa taxoon yonantu bi daan jox aqra ak uyaynaatu asaka bañ mujj di wax ne yonantu lañ gënoon a bañ dañu mukk di ñu jox di ñu jox di ñu jox ba moom lañ gën a bëgg moo tax ñu mel noona bi Aboubacar toogee ñi ñëw tamit bëgguñ lislaam te ku ne xam na ne duñ tuub ñëw laaj Aboubacar Aboubacar jox leen il faut Omar ibnu Xataab ñëwee nañu defaat délégation ñëw Omar ne duma leen jox tous lislaam xoomal na wëlis leen fu mel ni ñun dañ ñuy wut si waa ñu wuteetuñ kenn yàlla may nañu mbooloo yàlla may nañu doole yàlla doole na diina ji yonentu joxoon na leen diine dafa néewoon doole ah, li euh, naka noonu tamit Aboubacar daan leen jox léegi nag lislaam am na doole ndax booba lislaam ñii ñoo ko juróon bambaane ko muy jàng dox di jàng raamaka ka léegi nag lislaam waxambaane wu mat sëkk la buy dox ci juróomi continent yëpp kenn mu mut koo dab di ko joxoñ dootuma leen jox tus moo tax loola moom ci jamonoy Amar ibn nga foog ne boo ko joxee dana mu tagg lislaam boo ko joxut tamit du tagg lislaam foofa moom folleekoo na ci jamonoy Omar ñaareel bi tamit mën naa nekk koo xam ne tabaarakallaahu sax Euh, ab ab ab ab ab jullit la bu tuub bees tuub na nii rek ñu wan ko ne diine ji diine solidarité la diine ji diine ndimbal la diine ji diine jàppalante la ñu yëkkati ko di ko jox ca asaka ja loolu sax nga gis léegi ñun moom lañ remplacé ku tuub bees kenn ku ci nekk yëkkati xalal di la ko jox ba tax na tamit tuubkat yu bëri di ko dugg nen dañuy tuub buñ tuubee ci jàkka ji boo liggéey ñi masque di ma ci yeneen jàkka gaa yi dagale xaalis ya jox leen ko moo tax tuubkat yi ku boo def ci attention lool bari na koy tuubal ne ko ashadu muy wax wax lu baat ba fekk moo la ko gën a man du jeex ñun ñi yàlla nattu ñu nekk ci ilimaan yi lu ne gis nañ ko ca ba ci tafsir bi passé sax nit dafa ñëw ne ma man de damaa bëgg a tuub ma ne ko man nag tuubal nit ci jàkk banaa ko ndax kaa bu ne fekk na ma ci boo bëggee tuub daal fii nga toog rek taxaw fekk man dafa foon dama ko yóbbu ca télé ba tuubal ko foofa ci jamono tafsir bi ñëpp gis ko ndax man koo dimbale ma ne ko daal da ngay wàcc taxaw ci buntu escalier rek su ma paree taxaw ñu tuubal la foofa ba ma ko waxee loolu laa ko gëj a gis keneen ki moom dafa ñëw ci même ci tafsir bi moom tamit ne damay tuub ma ne ko jarul yëg ci kaw nañ toog fii rek dama ko tuub ñu ngi ko tuubalee noona boole koog ku ko jàngal nañu sangoog mu jox ko téléphone ya keroog la ko gëj a dégg ndeke numéro téléphone mu joxe benn baaxul ca loola tey su ma si doon wax liñ ci dundoog liñ ci gis ak liñ ci jànkuwanteeg li ñu ci nit ñi jaar loolu rek doy na kon moo tax man ngi ci yee borom ilimaan yi na nag ñu am jàkka yu bees yi na ñi nga xam ne dañoo nekk ci jàkka yi nga xam ne place publique la dafa nekk jàkka yu bari mbooloo yooyu yëpp nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax a xam ne bari na ku ñëw ne dafay tuub fekk tuub na lu ma téeméeri yoon lu yóbbu ci kër ga dong moo ko tax a jug kon ki tuub bees mën nañ koo jox ci asaka ji ngir dëfal xolam tàpp ko wane ne diine ji diine dimbalante la diine ji diine solidarité la diine ji diine jàppalante la yu mel noona ñetteelu xaaj ba nag mooy koo xam ne sax ab ab ab ab yéeféer la euh, yaakaar nañ mel na ni ko xemem lislaam te moom nawleem yëppale ay sang lañ fa nekk ay kilifa te bëgguñ lislaam te moom mii yaakaar nañ ne ko jox alal danga dana dem ba dugg ci lislaam te bu duggee ñu bëree bari mën nañoo duggee ca gannaawam nga ñu ko koy jox ca pour xemem loo ko waaye ñoo ñëpp nag dàqu nañ kañ koy mën a jox daal ci ibnu wal mu allafatu xulóob mooy ko xas tudd baatab ashadu an laa ilaha laa ci ji jamono rek waaye yeneen yu njëkk yooyu yëpp dugg googoon yaakaar nañ sa dugg kenn du la joxati fooli nañ ko dugg nga ba pare wala du kon doo dugg mukk waaye sa làmmeñ yooyu ñaaw rek ñu ne nañ la jox ndax nga tagg lislaam xamatut fooli nañ ko ndax booba lislaam doom la woon gu doon jàngaraama ka taxaw a ka dox léegi nag waxambaane la woo xam ne mën na boppam kenn ñemetut koo dabati xoomal na walis lépp xoomal na walis ñëpp ku mën dugg baax na ku mënul dugg say fi bopp la waaye lislaam moom alhamdulilah rabbi yàlla dooleel na ko euh, keneen ki mooy wa fi riqaab riqaab ab jaam lay doon kuñ moom sa yama ko jamono jamono koy wax noona euh, te fekk jullit la ma la ko mën a misaale comme Bilal jullit la tuub na dugg ci lislaam jaam la ñu ne kon kat nañ jël ci alali asaka ji dajale ko dem ci sangam bi mu wax lu mu ko njotee ñu ne téeméeri junne yëkkati téeméeri junne ci alali asaka ji jox ko ko bu mën a libéré wu nekk di gor boo xam ne day liggéeyal lislaam euh, juróom-benneel ba mooy alxaarimuun ñi nga xam ne dañoo boru te ba ñuy bor wu defuñ ko ngir jàpp asaka ba ñuy boru defuñ ko woon ngir yàq waaye lépp nañ ci bitig bii lépp fële ba mënatuñoo génn ti ndeysaanam ngir dundal seen njaboot rek jafe-jafe jamono ji rek su ko defee nag ñu ne nañ génnee ci asaka ji lu tolloog seen bor ya jox leen ko ndax ñi mën a tamit libéré wu ndax saa yoo nekkee ku yore bor rek kan ko jëflanteeg ñaaw yow mu ji nga nekk soppeeku ab jaamam moo tax kon borom bor yooya dees nañ leen euh, jox asaka ngir maanaam mën leen a dimbale ca wàllu woowaa naka noonu tamit wa fi sabilillahi sabilillahi ji nag imaamu malik mujaahid rek la ko tekkee mooy képp koo xam ne day jihaat ci yoonu yàlla di xare ji kooka mën naa jël sax ñaari yoon mën naa taxaw fii ne faqir la mbaa miskin la Euh, bañ jox ko ñu ko joxee pare mu ne ibnu sabilillah wala mu ne mu taxaw ne kon sabilillah la mujahid la damay xare ci yoonu lislaam ñu kati asaka mu jël ñaari yoon kon kooku man na ko wa aqasa bi wasfayhi euh, kon kooku mooy mujahid kuy jihaad kooku nag lu mu bëri la bëri la dañ ko jox ndax mbiram jihaad maak la ci aju kooku moom ajuwuñ ko ci mu nekk faqir ajuwuñ ci mu nekk miskin ak yëpp moom far force ñu jox ko ngir jihaad jaag taxawaay ba mu def ak la ca aju loolu lépp kooku dañ ko ko jox beneen bi ci tegu nag mooy juróom-ñetteelu bi kon mu mu e, e, e, jaahid boobu nag boo demee Abu Hanifa ci la yéegal projet jàkka yi ne asaka mën nañ ko jox jàkka Malik d'accord ci mu ne mën nañ koo def ci teen bu ñuy bënn mën nañ koo def ci daara ju ñuy tabax mën nañ ko defar ci yoon mën nañ ko def ci hôpitaux yi ñuy tabax ak garab yaag yooya imaamu Malik ne déedéet fi sabilillahi la wax fi sabilillahi nag mooy almujahidu xaasatan waaye yee moom imaamu Malik yégalut ko ci moo tax moom nanguwut ñi jël asaka di ko dagalee di ko tabaxee jàkka mbaa daara wala yoon wala hôpital yi wala di ko jënd garab moom daal borom procès la ñuy jox daa lañuy jox asaka ji lu mu ca def moo xam waaye duñ jël asaka di ko def ci procès moo xam procès ba jumaa la yoon la yooyu yëpp kon ñu tënku ci ngiru imaamu Malik nañuy bàyyi xel ci masala moomu bu baax a baax a baax a baax ndax ñu ci bëri tey ci dëkk yi dañuy jëfandikoo loola te fekk na ndeysaanam du dara ñàkk xam rek buñ xamee rek danañ ko bàyyi topp ci la ca imaamu Malik wax ibnu sabil nag mooy ku taggatéembe tukki rek nekk foo xam ne ndeysaanam mënta ñëwati dañ ko jox asaka ndax mu ñib loolu mën naa nekk tey ko dem Italie ndeysaanam amul billet bu ko indi am na ñoo xam ne sax dañ leen a war a refoulé gars yi jàpp nañ leen te mënuñ leen amuñ amuñ dara lu leen mën a jëlee foofu ku leen taggal billet gars yi bàyyi leen dañoo taggatéembe te ñoon foofu fiñ ne amuñ ko leen mën a jotale seen xaalis bi amuñ ko leen mën a lebal nañ seet lu tolloog billet ba lu leen mën a tàggat ci seen tagga témbe ga njëkkati asaka jox leen ko kon fu waaye dem tukki fa lang rek la la fa taxa mën a ñàkk mën a juye ko mooy paas bu la mën a yóbbu rek moom ngay xaar mënoo koo leb amoo ko la ko lebal amoo tamit alal joo mën a fayee ca foofaa te mënuñ ko wala boo ko amee te mënuñ koo indi léegi mën cee jot léegi boobu banque yi xewagutoon waaye léegi banque yeeg yi si aju yooyu yëpp tax na lépp mu ji jokkaloo waaye bu ko amoon ta amul ko ca banque tamit du ca mën a jot lu xalaa ku li xaal daal taga téeméer ci côté yëpp ibnu la ci côté kooka dañ ko jox asaka lu tolloog lu ko mën a dimbalee ba delloo waat ko ca réewam mooma tagga téeméem googa mën a tàggartiku kon ci nga yëg ne diine lislaam diine social la ndax gis nga ne juróom-ñett ñii mu tudd ñoom juróom-ñett ñëpp xaajoo woon nañ leen ndimbal ba moom bu ñu ko waxutoon moom yàlla sax ñun ku ci yàlla may xel xam nga ne ñii xaajowoon nañ ko ki am talam am doyut ko kooku jar naa dimbale de ki amul dara bu yalwaanu du dund boo xam ne ordonnance bu ko yooxuwut kenn du ko jënd jar naa dimbale de kii liggéey ci xalal ji bàyyi xitteem lépp ñu ñëpp ngi toppatoo seen xalal yi moom muy toppatoo alali askan wi lu mu bëri la bëri la nañ ko jox ndax wax dëgg yàlla nag euh, alal dafa xeeñ ki nga xam ne dafa dugg bees lool ci lislaam ànd ak mën naa am sax fam fam mbokkam ya bañ nañ ko génne nañ ko kër ga mu ngi nekk ci ay jafe-jafe ajoo lu wel noona dimbale ko tàpp xolam dimbale ko bu baax a baax a baax a baax loola lu am a am solo la moo tax euh, yeneen yi nga xam ne euh, nekkuñ ci lislaam tabax ay centre doom yi ñuy jur di leen sànni ñi leen i nangu loolu lislaam moo ci gënoon a wu pour def ko te loolu lépp mën nañ ko noonu réglé ci asaka yeeg ci ndimbal yeeg yooyu yëpp tabax ay centre ñi nga xam ne tey seen bàyyi seen loxo gutu seen gannaaw ñu mën leen dimbale jàngaloo leen ñi nga xam ne dañ leen a jur leen ñi mën leen caa yar ñi nga xam ne tamit dañoo dugg ci lislaam ñi génne leen seen kër ya ñi mën laan ñi mën leen caa dimbale ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe yu kenn ta wax ñoo ñëpp ñu jël foofu dugal leen ci kaaw social boobu mën leen caa dimbale lislaam moo ci gënoon a placé wu buñ demee ba ñeneen di ko def nag fekk na ñooñ ña dégguñu lislaam demeet ki nekk ab jaam xam nga ne bëgg lislaam tusubaa gën mu julli ji tàkkusaan bu lislaam xootee mu mën a dem tey nag sanga ma ne ko doo dem fenn sama tool yi rek fi ngay foofu ngay nekk manta dematil ci dara mu nekk ab jëng bu mu ko jëng kooku ñu mën koo génneel asaka libeere ko xam nga ne loolu lu rafet la koo xam ne tamit dafay dem di jihaati bàyyi njabootam mën naa am sax dootu leen bisati te dara taxut lu yàqali toolam islam bi kooka lu mu bërile bërile war nañ koo jox da na nekk loo xam ne lu am am solo la ku tagga témbe cim réew soo mii ne tukki ngay xam ne tey bari na ñu nekk Italie waat naa ci yàlla dañoo tagga témbe bii rek moo leen fa nekk Amérique ñi nekk feneen amuñu dara amuñ ko fii amuñ ko foofa te amuñ lu leen mën a indi fii kooku ku leen dimbale yëkkati dara jox leen ko bañ mën a ñëw loola tamit yàlla dina la fay lu dima lu lu war a war la lu rafet rafet la kon nga xam ne l'islam kaaw social rek moom la moom lay réglé Euh, tabaarakallaahu bëggul kenn sopp bëgg na kenn ku nekk euh, man a dimbandikoo kay laa yakuna dulatan baynal agniyaa yi loolu lay lislaam di bañ ndax mbir mi gaal gi moom bu wotee benn côté rek musiba am ko mooy mbay mi dee dolleeku na mbay mi dee maanaam sekki na mbay mi dee tabaarakallaahu meññ na ta fees na loola fu ñu ko waxee mooy da ngaa joxe woon lu tuuti yàlla delloo la lu baree bëree baree bëree bëri waaye tamit baat bi danay tekki ab tathiir zakat bi maanaam tathiir mooy ak laabal noonu muy sekkee sa alal ji noonu lay laabale sa alal ji dana ko laabal ci ak yàqu dana ko laabal ci ak yàqu moo xam yàqu safara su ko lakk la moo xam yàqu sàcc bu ko sàcc la moo kam yàqoog client bu ñëw luubal ko la moo kam yàqoog nga yore feebar sax nga mujj fajoo alal jala loola lépp booy génnee asaka asaka ja dana laabal sa alal ji ci xeeti yàqu-yàqu yooyu yëpp di gaar di gaar alal lakkak sàccak yàqook tappaleek fajookook facci sa jabarak say doomak ak yeneen ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp li gën a gaaw ci man koo defar rek mooy génne asaka kon moom dana ñëw taxaw taxawaayu tathiir muy laabal waaye tamit noonu muy laabalee sa alal ji ni lay laabalee sa bakkan bi dana laabal sa bakkan bi ci nay dana laabal sa bakkan bi ci bëggee dana laabal sa bakkan bi ci xir ci alal dana laabal sa bakkan bi ki bëgg a dajale bañ a bokk ci bokk ci alquran di tudd ne jamaa malan wa adadahu bëccëg bi yëpp ngay compter rek bu ngoon jotee nga paquet yóbbu ca banque ba su ko defee parñaar fukki junne yu ne boo jëlee fukk ya ak juróom-ñeent ya jël ba ko fukkeel wala boo jëlee juróom-ñeent ya ba koy fukkeel nga paqueté ko ko ca paqueté yi dix buy cinq mille noona ba mu mat un million nga wut ak buum gu ndaw takkee ko ko su matee deux million nga boole deux millions noonu nga takkatewaat ko xiir googa ci xiir ci ah, jamaa maalan waxadadahu li ci gën a gaaw mooy génnee azaka loolu dana nekk luy laabal sa bakkan bi ba nga xam ne alal ji li muy bari bari fees na tepp ci ténk yi waaye nag xol baa nga fees tepp ci yàlla ba tax na ña ca bitee gis alal ja waaye yow mi ko am yow gisuloo ko loola nag la ca gaaw mooy génne asaka kon dana sekkil sa alal ji dana ko laabal waaye en même temps moom tamit dana la laabal su fekkee ne nag boo demee ci Muwatta bu imaamu Malik ci gis ussaani ba dafay wax ne suñ ne génnee asaka sabab la ci dafay laabal dafay yokk alal te yow génnee goo ko noona loola dafay dugg ci li ulamaaw balaa tuddee sëy tasmiyatu shay'i bimaa ya'ulu yi mooy delloo tuddee dara ca la muy dellu rek kon def ko day tax mu dellu ca loola su boobaa nag kon moo tax buñ ne eh, tabaarakallaahu dana ko laabal dana ko dolli ak timit dana dolli ko koy def dolli ga mën naa nekk dolleeg fii ci àdduna bi waaye mën naa nekk tamit ak dolleeg ëllëg tamit mu continuer ba ci àllaaxira buñ ca namee nag dolleekuk àllaaxira ak dolleekuk àdduna ji ci borom alal jeeg alal ja ci boobaa loola mooy tuddee dara ca la muy dellu moo tolloo laal quran waxoon ca suratu yusufa ca ñaar ña géntoon dama géntoon euh, yanu benn teng-teng mu defu mburu ay tan ñëw di ko cop mu ne ko balaa yàgg rek da nga génne dañ la génne ci kaso gi pand la ray la tan yi cop sa bopp bi kenn ka ne ko man de damaa gént ansiru xamran asiru xamran jooju doo ko firee damay nal sàngara sàngara kenn du ko nal waaye da ngay wax ne dama damay nal inab mi dellu ci sàngara mi ñuy xel yi kooku mooy tasmitu sëy yi bi isma yowolu ilayhi tuddee dara ca la muy dellu kontin buñ ne asaka dana dolli alal dana dolli borom alal jooju ñu namm ci dolleeku gu àdduna namm ci dolleeku gu tamit àllaaxira mooy fam koy yóbbu di ko fa mu jële ëllëg foofa lay mujj mu teeree ji fa su ko defee kon loolu lañ ca namm ca tuddee ga waaye tamit danañ ko ko tuddee sax ci doole ku ko namm ci rek ne danañu payooral kay génnee asaka ca sababu génnee ga payoor gu bëree bëri goo xam ne su ëllëgee ci sa bëtam ya tegee rek moom dana ruus ndax dafa lebalee yàlla ci nim toll yàlla fayee ko moom ca nam toll su boobaa nag moom bu ko fayee ca nam toll rek dana rus ne su ma yëgoon lu ma tuuti loon ma baril ko su ma yëgoon lu ma yéexaloon ma gaawee ko su ma yëgoon li ma téewoon lépp ma joxe ko ndax nit bu dee ñaari question rek lay bàyyi muy ñaari laaj laaj bi ñam jëm a ko koy laaj laaj bi ñam bàyyi gannaaw a koy laaj ñam bàyyi gannaaw benn laaj lañ am mooy lum bàyyi ñu ne bàyyi na kër ca almadi ñi ne bàyyi na kër ca parcel ñi ne bàyyi na ñaari kat kat ak ñaari étage ak ñetti soxnaak yu kenn xamut ñu ngay lim mooy ñam bàyyi gannaaw ay laaj loola su ko defee ñam jëm nag di malaaka ya koy war a régler di laaj ne lum andi su boobaa nag bu bëggee texe na fexe ba la mu yóbbu indiwaale ko ci biir bàmmeelam ëpp lim bàyyi gannaaw ndax wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu inda allah waaye nag bu jëlee alal ja di ko korkoral lekkut ca lelehut ca ba lam bàyyi gannaaw ëpp la mu jiital su boobaa ñi lakk ko mu mujj dem safara ba tax maam xalifa ñes xutbub yàlla bu màgg ba dafa daan wax ne yal nañu yàlla may alal ji muy def ci suñu ténk te bañ ñoo may alal ji muy def ci suñu xol ñu ne ko alal bu nekkee ci xol lu yaate ba mu ne borom du ca lekk du ca lele bu dee dem safara alal bu nekkee ci ténk nag borom dana ca lekk dana ca lele te su ma ne lele ga saraxe ñëw na joxe asaka ñëw na dimbale néew bi doole yi ñëw na dimbali say mbokk ñëw na loola lépp nag boo lëggee mu jural la lu bëri loo teewal ca sa kanam borom ba loola ëpp li nga bàyyi gannaaw loola man laa sowe ëllëg yóbbu la aljana ah, moo tax nag daal nit ki war naa xir ba la muy teewal ëpp doole fuuf tabaarakallaahu li mu bàyyi gannaaw kon baat baa ci baata zakatu moom daal luxatan rekk mooy annamaa u boo demee ibnul faris loolu la wax loolu la gëm imaamu Maarudi loolu la gëm ne baat bi yëpp daal foofa rekk la xaree te dañ koy tuddee nag moom sa kaatu gi tahaara tahaara bi maanaa tathiir ngir laabal gi muy laabal alal ja ci yàqu ci naxasaay ak laabal gi muy laabal borom alal ja ci nay ci bëggee ci xiir ci alal eh, looloo taxoon yàlla di wax ci alquran ne yonantu bi xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha nga gis ne kon baatab taharatu bi ñëw na waaye tamit baatab zakatu bi ñëw na ci tutahhiruhum wa tuzakkihim moo tax ñu ne baat bi foofa la bàyyeekoo ci xaruwaay ba moom ci boppam tamit boo demee ci raaxib dafay wax ne waa jii de buy génnee asaka ci alalam ji dana ko bijjal jural ko tamit barke ba tax na sax alal ga day wax ne ku tuuti woon naa waaye yow baril nga ma nekkoon naa ku nar a jeex waaye defal nga ma kon ku bëgg a lu tuuti bëgg a desal lu waroon a jeex li ko mën a maye lenn rekk la ci alal ji yàlla jox la nga sante ci yàlla gërëm ko génne ca asaka ja muy xàqu fuqaraawu yi ak masaakin ya ak ñeneen ña ca des ka juróom-ñetti xeet ya alquran tudd baat bi nag buñ ko waxee saraan ci shari'atul islamiya zakat ci istilaawu ulamaawu sharia mooy génne alal juñ jagoo jox ko ñuñ ko jagleel da nga defee ko tamit ci jamono juñ ko jagleel alal juñ jagleel ja war caa génne asaka boroom xam-xam ya werante nañ ca ku mel ni imaamu Malik dafa gëm ne li ñuy bay lañ ca war a génnee asaka ñaar fukki xeet la fam ko teg boo ma toppee danaa la ko wax ku mel ni Abu Hanifa alal juñ ko jagleel ja amulul ko àpp dafa ne lépp lu ñuy bay suuf di ko saxal rek nit war koo mën a jariñoo lu mën a doon dañ ca génnee asaka moo tax moom lam wax moo gën a arrangé fuqaraawu yi te ñooñu jar nañoo bàyyi xel moo tax moom lam wax ne war nañ caa génnee asaka moo gën a arrangé fuqaraawu yi li imaamu Malik wax nag moo gën a arrangé agniyaawu yi maanaam daal li Malik wax moo gën a arrangé ñay joxe li Abu Hanifa wax moo gën a arrangé ña ñuy jox su nag xam-xam dana ñëw dëppale ak seet njariñal ñay joxe lañ war a jiital ci njariñal ña ñuy jox loola lépp tamit danañ ko ci leeral ca bunt yooya moo tax imaamu malik radiallahu taala anhu ñaar fukki xeet la tuddoon danaa la ko limal cheikh xalil tudd na lépp waaye imaamu abu hanifa at taabii moom bàyyiwul dara lépp luy suuf di saxal rek dañ ca génne asaka kaani ñëw batiñ ti ñëw kaal ñëw jaxatu ñëw yomb beeg naaje beeg yooyu yëpp moom Abu Hanifa bàyyiwul ca dara dañ ca génnee asaka buy Malik nag yooyu yëpp kenn du ca génnee asaka muy xaal jaak naaje jaak yomb jaak orange jaak banaana baak pom yaak yeneen ya ca haju ñoo ñëpp nag ñu ngi wuutee ci dégginoo aaya ji yàlla ne yaa ayyuha alladina amanu anfiqu min tayibaati ma kasabtum wa mimma axrajna lakum min al ardi min googa ci la Malik ak Abu Hanifa wuutee ca déggin wa imaamu Malik ne min ngi minam tabiid la mooy dafay lennale tax boo koy firi ci firim mal da wax ne ak lenn ci loo xam ne génneel nañ leen ko ci biir suuf Malik ne lenn lool nag mooy luñ mën a dundee te man koo denc imaamu abi xanifa ne min nga minam istigraq la su boobaa booy firi ci biram mazhabu abi xanifa da ngay wax ne rek lépp luñ leen génneel ci biir suuf xam naa nag minam tabaxit ak minam istigraq yaak minam tabiyin ak minam ibtidaay yaak loola soo ko bëggee xam faw nga dellu ci ibnu malik dana la ko gën a leeralal ca façon min yooya noona waaye lu ci mun di xam daal danaa la wax xeet ya Abu Hanifa wax dañ ko génnee ca kanam danaa la wax tamit xeet yi imaamu Malik wax dañ ko génnee kenn ku nekk fi nga ko teg ci alquran wax naa la ko waaye dinaa la wax fi nga ko teg tamit ci sunna ak ci seen dégg-déggin boo ma toppee ci waxtaan yi yëpp di ñëw ci suñ kanam incha allah ci bunta asaka ji kon asakaango bu fekkee ci sharia la mooy alal juñ ko jagleel ci jamono juñ ko jagleel nga war koo jox tamit ñuñ ko jagleel lii daal moom lay asaka di tekki saraan moom lay tekki ci istilaahu ulamaawi ulamaayu sharia te waxoon naa la tamit lam doon tekki ca luga moom baat bi nag asaka ci boppam dafa bëri ay tur yàlla dana ko tudd ci alquran tuddee ko azakaatu moo ca gën a siiw xataa dana ko tudd sax tuddee ko sadaqatu dana ko tudd tuddee ko nafaqatu dana ko tudd timit tuddee ko alxaqu dana ko tudd sax tuddee ko alxurfu yëpp ay